voilà euh, la diva moom la gis noonu Coumba Gawlo waaw gannaaw bu mu waree fêté 40 ans de gis ngeen ko noonu moom la ñuy xaar nii mooy wàcc Coumba Gawlo voilà donc ñu xaarandi. def ci musique Sénégal lu yaatu voilà bu nuyoo noonu jamono borom 40 ans. am na ay zoom de am na ay zoom de. taxaw rek taxaw rek. am na ay zoom de

fii la jëm ah. Moussa fii la jëm fii la jëm nii la nii la c'est par là Moussa Moussa kay kay Moussa kay kay ma ne ko borom 40 ans de carrière zéro faute defoo fi ñu ñaaw waxoo fi macha allah bu ñu ko soxla ba ko soxla bu ñu ko la diva la diva à la fois yaay suñu fierté la diva suñu fierté fii la fan la gars yi ko moom maa leen moom moo leen di dirigé. kon ba daw la fekk ñu dugg ci noonu la. bien. kii la jëm ci man la jëm ah. waaw. Moussa. Moussa. fii la jëm Moussa fii la jëm fii la jëm nii la nii la c'est par là Moussa Moussa Moussa ma ne ko borom quarante ans de carrière zéro faute defoo fi lu ñaaw macha allah mooy ñu ko soog moom dara ko soog muy ñu ko la diva la diva la voix de la suñu fierté la diva suñu fierté fii la fan la fan la gars yi ko Mame Malick moom moo leen di dirigé. kon ba daaw la fekk ñu dugg ci noonu la. c'est bien. Kita korek nih alisma, bengkok bengkok sus. Ini apa? waaw boo avancé rek gars yi yéen ñoom nag ah. non pas d'interview. pas d'interview juste des PC. pas d'interview. ok merci. Okay. kon da ngay toog voilà merci. président comment va la grande forme ça se passe. Merci. Samba. Demoon na. Di taxaw rek ni yàlla dañ ko bañ ko sës. Ni baax. Waaw. Waaw. Boo avancé rek Non, pas d'interview. Pas d'interview, juste des PC. Pas d'interview. Ok, merci. Voilà, merci. Voilà, merci. Président, comment va la grande forme Ça se passe Ok. Comment ça va Très bien. Ça va bien.

Merci, Ken. Vous pouvez maintenant Merci. C'est bon. C'est ouais. bon. Euh... Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.